amis auditeurs ñu ngi leen di nuyu ah. di li maa ngi lay nuyu itam dalal lan leen jàmm comme chaque samedi ni ngeen koy amee ci la radio du bonheur dans donc votre émission Rewmi People comme nag dañoo dugg ci koor gi dañuy sellal ba mu sell incha allah fii ba koor gi di jeex ah. rek lañ leen di indil ci la radio di bonheur ci suñu émission daanam ngeen di am alors comme ni ngeen ko amee kii jiiri annoncé na ko annoncé na les couleurs tey suñu invité mu ngi tudd Ahmed Ndiaye Sikar moom nag taalibe Maam Thierno la ah Ahmed noonu la. waaw noonu la noonu la kay acca moom la ñuy dalal tey suñu émission laata ñoo dugg ci waxtaan bi ñu may ko mu ñi nga xamante ni ñoo koy teel ci la rajo Rewmi FM Ahmed ñu ngi lay bu wér. ñu ngi lay ziar bu baax yaa bu baax la jox sa wàccuwaay di ziare képp koo xam ne mi ngi déglu rajo bi. ñu lay fekk nga nekk di la jox loxo di la siyaare bu baax di masawu ñëpp ñëpp ñëpp ci feebar bi xew nii. Mhm. ah di leen di leen daal. metti na waaw metti na trop mais daal yàlla baax na nañ jàpp rek doo bàyyi xam ne sunu borom moom li mu dogal rek moom la sol. dafa gën noonu. dafa gën d'accord kon si kërkat yi ñoom itam yëg nañ bu baax a baax. Euh, <coughs> fekkat yi ñoom itam yëg nañ bu baax mbas mi am ci dëkk bi. bu baax a baax a baax ah, kay. ah ñu kay ku ba dool am nañ kay boo noppee rafle. ci naka ñëpp ah comme ñun si kar rek moom mooy moo ñu moo ñuy dundal. si kar wax dëgg na yàlla ci la ñuy def lépp ci la ñu amee lépp. Mhm. bu ko defatul kay dina dina net si ñun. dëggantaan. waaw dina net si ñun lool. alors Ahmed tey jii gën a bëgg a xamante ak yow lan nga ñuy wax. est ce que nga ñu gën a xamale ak euh, sa jëmm ji. waaw sama jëmm ji de Ahmed Baye Fall la Ahmed Zikr la maanaam di yëngu si wàllu sikar dëkk Asilem di dund Baye Fall taal bi maam Thierno Bira Fati. waaw noonu la demee daal Ahmed Ahmed boobu. d' wàllum sikar tey jii buñ la doon wax nga xaram fàcceel ñu ko. dañuy parce que dañuy dégg sikkar sikkar c'est vrai sikkar euh, bu ma juumul mu ngi ju mu ngi jóge ci zikrulaahi noonu la waaw boo ñu ko doon faram fàcceel lan nga ñuy wax ak aussi fan la sokkee ko kan moo njëkk a sikkar ah, zikrulaahi de xam naa ne maam seera faa tax ñuy sikkar ñun ñëpp ndax moo daan moo daan moo daan mbaax moo daan mbaax ñu sëñ Tuubaa moo tax ñu ñëpp ñu doon ay Baay Faal bëgg seetaan laa ilaaha illallaah muhammadu rasuulullaah d'accord yow kan nga ciy dugg kañ nga dugg ci wàllum zikrullah bi. 94. Hmm, 94 ba léegi. <laughs> waaw. ah bon. <laughs> yëf yi nan na la duggee euh, euh, lan moo tax nga am cofeel gi da nga xëy xëy am ko wala da nga am waajur boo xamante ni da ka daan def. naka la ñëwee ci yow. ah dama amoon samay nijaay yi bu nekkoon kenn ki gaañu na kenn ki moo doon nekkoon suñu jëwriñu fii. waaw mm-hmm. quatre lañ am daara kër ga suñu kër. waaw mm-hmm. ah, loolu daal moom mm-hmm. uh-huh. bi daa bëri. yow fi nga nekk daa bari bruit man maa ngi ci benn néeg tëju. waaw ah, ban ban sikkar nga njëkk sikkar mu mu nit ñi mu marqué ñi nga xamante ne ñooy bëgg ñooy bëggee eh, xeetu musique boobu. murid yéen xam leen Ababacar Sarr Ababacar Sarr man tëb la bu ñëw ma xamul fa mi jaar ɗon ka ɗo mande watulɗago keɓakar on sobo jerceala mhm. wattul bakare ababo kaybate analaha analaha loolu laa njëkk si kar loolu nga njëkk si kar waaw la ban at loolu de dama naa ne deux mille deux mille deux mille deux mille deux mille onze yooyu. deux mille onze. waaw waaw su ma juumalee. léegi ñu ko sukkandee. deux mille dix deux mille neuf. loolu yàgg na de. fàtte naa sax ban la. Ahmed loolu yàgg na de. <laughs> yàgg na trop kay. <laughs> d' accord ci kër euh, Cheikh Ahmadou Bamba sa sa buntu mooy Maam Thierno. waa kër Maam Thierno Ibrahima Faty. Mhm. Ndaamal Daaru lan moo tax. lan moo moo tax comme nan kër maam Thierno ngir mu nekk fi nga xamante ni mooy sa buntu ci kër Cheikh Ahmadou Bamba waaw parce que da di rek ci yoonu murit amaana def lu bëree bëri bëri bëri ci dëkk bi mhm. maanaam gindi ndaw ñu bëri ku si nekk tey jii am nga jaar jaar boo xam ne tey buñ la koy nettal da ngay mun la metti loolu yëpp moom moo ñu si dindi mhm. waaw moo ñu dimbale teeta ñu si yoonu Baye Fall xamal ñu lan mooy Baye Fall Adja Père xamal ñu lan mooy Baye Fall waaw moo tax ñun ñëpp ñu jokk si moom wax dëgg neex la mu doon ko baax tamit koo xam ne yërëm na ndaw ñi maanaam def na ci ñoom lu bare bare bare bare bare waaw noonu la demee daal moo tax ñu ñu kii ko te tamit ñu yaakaar àdduna ak àlaaxira Cheikh Oumar Kara Mbacké Noreyni nii daf ñu ko dénk daal waaw ñu ñu ñu ñu ñu topp ko loolu nag wër na sëriñ Tuubaa Mbàkke d'accord ah, bu dul bu dul taalibe ak ndongoom sax moom maanaam ñun ñoo ko bëggal suñu bopp waaw bu ko ñaanal suñu borom yokk fan yi dëgëral taxawaay bi mu mel ni maam Thierno moomu taalibe bu mu toogal nga foog ne yow la gën a sopp yow la gën a xam ci taalibe moom waaw man sama diggante ak moom xëy na man la waaye moom danaan nekk suñu kër danaan nekk suñu kër lu bare bare bala ñu xamante daal seen kër la daan nekk moom ci wàll moom ci wàllu boppam waaw ma ni seen kër fan la woon asilem ok foofu la daan ñëw foofu da ngeen fa amoon daara da fa amoon kuréel euh, lan seen relation ak moom en tant que homme religieux en tant que koo xamante ni kilifa la muy sàllam <laughs> di ñëw si yéen lan moo ko waraloon. non man danaan fréquenté suñu kër danaan ñëw si ñun nag si daara ji mais danaan fréquenté suñu kër moo tax. waaw moo tax dafa xamante woon ne samay samay waajur ñu doon wëllëre daal waaw moo tax mu daan ñëw suñu kër. d'accord. alors Ahmed bëgg naa ñu taxaw tuuti ci li nga xamante ni mooy wàllum bayfalisme parce que ku nekk ak appréciation bi nga ci am bayfal yi entre guillemets ay ay bandi lañu ay bandi déguisé lañu am na am na parti yoo xamante ni sax seen seen doom bu bu engagé woo ci yoonu bayfal du du leen neex lan que xam moom foo gis fukk yu di nga gis fukk yu waaw amaana ñooy yàq sax moom xëy na seen ñàkk xama tax ñuy yàq waaye bu ñu xamoon duñu yàq ndax yëfu yàlla kenn mënu koo yàq waaw lenn rek moom lay mooy conseiller Baye Fall yi man man dama am conseil boo moom laay conseiller Baye saa su ne mooy ñu rafetal nekkin bi nga xam ne am na ñeneen ñu nekk suñu ginnaaw di ñu xool booy dem cant nga xool lu rafet nga sol ko du yor secteur ba bañ a doon affaire de bistro wala affaire de de dara daal pour nit ñi nga xam ne te ñoo ñu seetaan mën ñu mën ñoo ñemee xam loolu dama koy waxtaanee chaque jour chaque damay sensibiliser nit ñi ci affaire boobu nag ndax du ay du ay caaxaan du ay fo. boo daal ndax maanaam bu ñu jàppee fii nii baax ko ni sukkar après mu neex nit ñi dem ñibbi ñu si bëri loolu lañ ko jàppee mu mbaay. Mhm. te jaamu yàlla la. xalaat musikurlaa ko ak baro mu ne ko li màkkaat moom la moom lañ bind waaw dañ koy def fii nag def ko fële mu ne haza minallah wa haza ilallah moom maanaam sikurlaa bi ñuy def ñun dañ ko def fii dañ ko def yomal xiyaam kon du loo xam ne dañ koy fooyee ndax laa ilaha illallah muhammadu rasulullah moo tee asamaan ak suuf loolu defe naa ku ne xam na ko waaw kon warul doon loo xam ne dañ koy fooyee xaw ma kan waaye man amee njaay de kenn moo xool di di di di di yàq sëriñ bi benn cant su xool man di yàq sëriñ bi déedéet du ma ko nangu du ma ko nangu ndax damay sàmm sama diggante ak sëriñ bi ndax moom ñaawul sama diggante ak moom kon man waruma ñaawul sama diggante ak moom xam nga saa su ne rek maanaam damay xool nu mu nu mu gën a rafetee damay sensibiliser nit ñi ci ci ci anam boobu tey boo xoolee cant tey yi li ngi si gis yeneen tarixa yoo xam ne dañ koy bëgg dañ koy bëgg loolu waaw ñeneen ñi dañ koy bëgg cant gi mais li ci ñuy demee ak ni ñuy gisee cant gi mel moo tax duñu duñu ñemee ñëw si cant gi amuñu moyen bu ñuy bu ñuy cante chaque jour ci ay saal amuñu moyen bi amuñu jàppale bi kon li ñuy mën mooy nit am xew ñu ñëw cantal la maanaam cantal la nga kontaan mm-hmm. waaw di nga si gis nag ñoo xam ne tey dañuy ñëw pour yàq mm-hmm. waaw yàq rek leen tax a jóg du ñu organiser cant duñu def dara dañuy xaar ko organiser ñu ñëw yàqal la dem seen yoon mm-hmm. waaw ñooñu nag man Ameth Ndiaye ànduma ñoom yaa ngi may déggam maa bu baax waaw ànduma ñoom ci dara ànduma ak ñoom man moom bëgg na ko yàlla damay bëgg saa su ne rek ñu xam ne du dëggantaan parce que ñu bëri cant gi ci koñ yi ñu bëri bu Baay Faal yi rek da ngay dégg ñu naan su booxuma leen ñi commencé waaw waaw parce que nag ñoom ñooy ma ma mais bii de kii du sama koñ man sama koñ fii maanaam ak feneen ak feneen bu bari fu may dem maanaam fu may dem sant man dama koy organiser dama koy rafetal xam naa ne loolu am du loo xam ne dama la koy mën a wax xam naa dama la après damay bàyyi bu dee am nga WhatsApp ma envoyé la sama cant nga xool ni noo koy organiser par exemple. noo koy organiser rek mu rafet. nag day taaru. muy rafet rek rafet baa nga xam ne tey képp ku taxaw di seetaan ngay am aabi cant yi. waaw man loolu loolu tax su ne dama si bañ bay sama waar. waaw dama si bay sama waar bu baax a baax a baax rafetal sape yi ñu mel ni ñu nekk jumaa di julli ndax laa ilaaha illallaah mënul ko solaale yi tudd kon da nga war a sell sellal fa ñu ne mhm. waaw loolu moom ci laay dox wax dëgg neex yàlla mhm. d'accord alors euh, diggante bi nga duggee ci sikkar si ak cant gi ba ak tey mën nañoo wax ni yàgg na yàggul euh, tey ji sa wàllum avancement ak say produit ñàkk production nga jot a def waaw def naa def album def naa ay ay onze onze single yooyu xanaa mhm. waaw def naa ay album def naa ay onze single Aya Soda ji dama koo sopp lool <laughs> dama koo bëgg lool est-ce nga ñu see tuuti. ban nga ban nga ci bëgg bu la ci neex wax ban moo la ci neex. Soda man boo ci wéy boo ci na. Aya Soda. jëf leen déglu Moussa. jëf ayaatu daan jug ñu déglu Moussa mu tàgg fi Moustapha ma ni woo woo Yaasin tëjoon naa way jërëg ñi di ci taalif te sax baay fal baasin fa Yaasin <laughs> ngëlëm nekkoon jaahil bu taalif xeleer war layaab njaacaar bayaasil su bokkul waay bu doo sunu réewi soodaan may xeleeri sax palam tu yaasin ak a neexoon tey a neexoon tey <laughs> ah mbaa ma ko foofu. non bii bii ko sama tuut tànk soxna jaara buso moom fu mu toll <laughs> nii Aya Soda da bëgg. ndeysaan ndeysaan. waaw ñu ngi baax rek. ñu naan Pape Kara Tafa Kara. Ah, ah, ah. Tafa Kara la. Papa Kara. moom tam reprendre na boobu ba génne. waaw waaw génne na si lu neex moom tamit. léegi léegi yéen Aya Soda boobu noonu. Mhm. lan eh, yaa booy maa kan moo ko bind. loolu sëñ Moussa Ka moo ko bind. waaw sëñ Moussa moo ko bind. mën a wax ne yéen waa Sodaan xam nga boo déggee ñu ayaa Sodaan mooy yéen waa Sodaan yéen nit ñu ñuul ñi. waay moo waral mu ne ayaa Sodaan jug leen déglu Moussa. Mhm. mu tagg fi Moustapha mi ñu woowee Yacine. Mhm. waaw mu ne gëjoon naa way ngir rek ñii di sàcc taalif mooy mag ñi fi nekkoon ñi xam ne tey ay waxam lañ daan tëdd. di ko di ko di ko di ko waxee daal di ko wayee uh-huh. waaw mu ne gëjoon naa way ngir rek ñii di sàcc taalif te sax seeni baay perul baasin payaasin uh-huh. waaw ñoom ñoom ñoom ñoom ñoo taxoon mu doon wax loolu daal dëggantaan waaw ñun ñi ñun ñun ñi ok en tout cas mën wax ni sikkar boo xamante ni jamono yi am na succès parce que ñëpp ko bu baax bu baax alors euh, Ahmed tey bu ma la doon laaj sikkar Askar tey fan la toll ci àdduna. ak Askar fi mu toll tey defe naa ne fa la way tolloon. Mm-hmm. waaw way way fa la tolloon mais lenn rek moo ñu dese mooy valoriser ko. valoriser ko. valoriser ko tamit nit ñi nga xam ne tey jii nii ñooy jël tey ay millions la gars yi di jël tey di ko def ci kat yi. Mm-hmm. dañ ko tamit sikarkat yi. Mm-hmm. nga xam ne ñoom tamit li ñuy def dëgg la. waaw ñu ñu ñuy am jàppale jàppale ndax amuñu jàppale man boo xoolee suñuy suñuy suñuy suñuy kii yu bëri tey ñoo koy defal suñu bopp. war a dem album suñuy affaire yu bëri. Uh-huh. ñoo koy defal suñu bopp. Uh-huh. xam nga ñooy demal doo dugal suñu bopp studio. Uh-huh. ñooy defal suñu bopp lépp ñoo koy defal suñu bopp. waaw xam nga loolu dafa xaw a métti amuñu jàppale bi amuñu benn jàppale. lan moo waral loolu. xaw ma man xaw ma ndax ñu ngi def lu ñu war a def. ñu ngi def li ñu war a def. waaw ñu ngi def wax dëgg neex yàlla li ñu war a def. Mm-hmm. waaw ñu ngi def ñu ngi ñu ngi ñu ngi dem studio ñu ngi ñun daal ñu ngi def lépp daal ñu ngi ñu ngi li ñu ñu ngi koy def mais jàppale amuñu ko. amu leen jàppale. producteurs yi est-ce que ci mm-hmm. yi la ñuy gën a taamoo investir. waaw merci investissement moom wax dëgg neex yàlla. Mm-hmm. maanaam ku ñu si jàppale ñu jël ndax amuñu ko. waaw ñun ñooy bu tey ji moo war a dem studio tey da ngay fay journée cent cinquante mil journée cent cinquante journée billaahi wallaahi taalaay génne mhm. cent cinquante mille nga war a def clip génne trois cent cinquante mille war ko def loolu yëpp tey boo amul jàppale day metti mhm. waaw yooyu yëpp dañ koy def def nañ ay clip bari mais maanaam du ñu am bi daal mhm. kon tey buñ leen doon jàppale ci wàllu euh, gën a jàpp mais instant yi nag Ahmed mhm. l'impression que dugg na bu baax ci xolu nit ñi parce que léegi da ngay gis sax ci ngénte yi ci ci mhm. au de musique dañuy mhm. taamu dëgg la am na am na bëri euh. na man maa ngi dem maa ngi dem ay ay ay ay mariage ñu lay woo ay jàkkaarloo ay affaire yooyu li ci bëree daal ñu ngi yaa ngi koy def moom wax dëgg neex yàlla waaw mais comme tey jii yenn yenn bunt yi tey dañuy mhm. tijjil nit ñi tey jii man tey man ma ñaan naa yàlla comme tey jii nii te président woo ñu comme wooye ñu wooyee woykat mhm. wala mbër yi wala kenn kenn ñu woo mhm. laaj ñun ñun tam suñu suñu suñu suñu suñu bëgg-bëgg. waaw loolu tamit. seen bëgg-bëgg jàmp lan la. seen bëgg daal mooy maanaam bu ñuy jàppale si wàllu wàllu wàllu wàllu clip yi wàllu wàllu son yi xam nga bu ñu fexe woon ba am studio boo xam ne sax mun nañ ko moomal suñu bopp bëgg nañ. ndax ñuy mën a di génne zikrullah yi di génne xasida yi di génne alxuraan yi di génne olofal yi ñu sëriñ bi bind kon yéen instant yi amu leen studio spécifique bu ngeen bëggee fan ngeen dañuy fay dañuy fay man tey bu ma bëggee dugg studio damay fay damay fay journée cent cinquante mille waaw mhm. cent cinquante mille mhm. war a def clip tam dangay fay mhm. Ah, dafa xaw dafa xaw a métti daal wax dëgg neex yàlla wër na Serigne Touba te yaakaar ñu leen lu dul si kàtt uh-huh. ah, moo tax muy xaw a si ñun. waaw d'après yow lan moo tax euh, mu nekk art boo xamante ni entre guillemets dañ ko traité en parent pauvre dañ ko laissé en rade au détriment des autres genres musicaux comme ci mel ni wàllum mbalax lan moo ko waral. ah mais li ko waral nit ñi la xamal nit ñi tey mu munoo yow munoo satisfaire ñëpp. waaw. Euh, gars yi ni ñuy def si mbalax bi xaw ma comprendre moo tey ne moom moo leen moo leen gënal ah. Mhm. moo leen gënal ndax bu dee la moom wax dëgg na kase un million si cant. ah bon cinq lay yem ñaar ñaar. yi kay gars yi moom mooy loolu des fois di nit da lay woo sax ne maa ngi nii def ko te yàlla tax nga dem def ko te yàlla tax ndax buñ la buñ si digalee yàlla tax rek mooy amaana yow mënu doo si dara ndax yàlla moo tax ngay def. Mhm. waaw kon doo si jotoo mën dara. Mhm. li ngay nga dem defu ji ko ñëwaat toog xam ne tamit ñoom xëy na am nañu yërmande bi mën nañu la jàppale xëy yëkkati benn xéewal la ko. jox la ko waaw loolu nga mun ko bokkal ñi nga nekkal mais sinon moom bu loolu cachet cinq cent mille francs maanaam sikarkat yi amaguñ ko te dañu war a am. ay cachet trente million comme ni ko gars yi di amee cent millions sax war nañ ko mën a am. ah mais dëggantaan. barki Seexul Xadim waaw man dama gëm ne barki Serigne Saloum Mbacke war nañ mën a am ñun cachet cent millions. Mhm. tey tey ñi nga dégg tey autorités yi ngay dégg tey ñuy jàppale ñëpp jàppale ñu ci jàppkat yi jàppkat yi nii jàppale ñu leen ku si amul ku si amul maire yi maire bu dëkk sa sa sa koñ sa gox maanaam amoo amoo amoo amoo xarit boo xam ne moom moo la jàppale billaay wallaay autorité yi jàppale te loolu maanaam war nañu mën a gëstu daal ñun tamit ñu ci kàttan ndax mais ñu ngi gëstu waykat yi est-ce que yaakaaroon ni ay kilifa diine yu ci mel ni Cheikh du Kara mi nga xamante ni seen yaakaar la moom tam mënoon na ci dugal loxoom parce que quoi qu'on puisse dire allah am na moyens yi tam jàppale baay Fall yi pour ñoom tamit ñu def seen aar dund ko pleinement waaw moom xam nga moom tey am na mélodie divine waaw waaw mélodie divine tey ku ñu nekk moom jël na la yóbbu la yóbbu la extérieur nga daan jàng ji musique ñëw moom def na bay na waar si ñun mooy jàngal ñu musique jàngal nañu man maa jàngal ñu lépp ci aar ci way d'accord waaw mu war ñun def na def na ko mais li nga xam ne tey jii da ngay dégg maa ngi jégal bu wér ndax am ama maanaam ñun ñëpp suñu mbokku jullit lañ comme ñun xëy na li ñuy def tamit ñoom ñoom wax dëgg neex yàlla neex na leen mm-hmm. waaw léegi xoolal concert yi concert yi waykat yi waykat nii da ngay gis waykat bu ñëw taxaw ñu taxaw baatar la vingt millions wala trente millions ba cent millions mhm. waa ñun ñii way yàlla tey jii ak rasulullahi mhm. war ñu mën a am xasewu sax cinq cent milles amuñu ko mënul ne mhm. autorité yi tamit nañ ñu bàyyi xel ci loolu man noonu laay lancé noonu laay tàllal loxo di di leen di jéggalu rek di leen ñaan ñu jàppale ñu ci loolu d'accord ok léegi ñu ñëwaat ci wàllum sikkar bi tey jii nit bu jógee ne moom sikkarkat la bëgg a nekk neex na ko est-ce que daf koy jàngi dafay demaat perfectionné ko wala wala nit ki bu fekkente ne dafa opté pour nekk sikkarkat mhm. baat bi dafay neex rek wala dafay mhm. dem jàngiwaat gën a gëstu parce que tam si karkat war na am yenn minimum xam-xam yi ci wàllu diine wala. waaw lu leer nga wax. waaw seen kat de wax dëgg neex yàlla wala fa la moom moom da daa da nga ko war a saxoo. Mhm. maanaam bi jàngal na la ñam. Mhm. ñun moom man man jàngalaate si kar moo tax milliers de personnes ku ñëw si man dama jàngalu si kar xam naa dama la jàng ji. Mhm. boo amee baat bu neex ba pare. moom nga jàng ji cant gi moom moom yomb naa kii daal maîtriser boo dégloo rek di nga xam ne yow fi nga war a teg ak nga war dul teg lay wax man du ma ne kenn kaa ma jàngala ndax man damay jàng si jàng laa toll mhm. man du ma ci lenn xam naa ne mënu ma xam moom mënu ma billaahi wallaahi taalaa yàlla suñu borom la ah? ah ma ni kon chaque jour yaa ngi ci gëstu bi yaa ngi ci recherche yi ah, non gëstu gëstu kay moom du jeex gëstu ba ba ñuy dee la d'accord des moom lu ñu bi moom yan qualité la wala la war a la war a làmboo. waaw sikarkat yi seen seen qualité seen qualité mooy tey war a war war a set sellal environnement bu ñu nekk tey jii ñëpp ñëpp jox leen cër. maanaam ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu fonk ñëpp. Mhm. waaw ba pare ba pare bañ a seen bopp te xam ne du suñu doole du suñu kàttan du suñu mën-mën moo tax ñu doon ay sikarkat ba nit ñi di ñu wuyu woy bëgg ñu déedéet suñu borom la soob maanaam ñu bañ ko xeexee daal doole jooju ñu bañ ko xeexee. Mhm. daal loolu pour wax sikarkat yi. d'accord alors euh, yéen sikar euh, bëgg euh, yi yéen yéen sikarkat yi ak yéen. ndax benn la ah man de wax yàlla jàpp naa ne ñëpp benn lañ. Ah. ndax ku yàlla rek. laaj mooy ndax sikar dafa am différence entre ñi koy def ak xëy na euh, fi ñu fi ñu ñu féete. Uh-huh. maanaam laayeen bi li muy def sikar la. Uh-huh. murit bi xaadir bi. Uh-huh. léegi différence boobu bu fekkente ne am na ci bëggoon nañ nga expliquer ñu ko. waaw ñun ñun différence bi rek mooy ñun fii xiin xëy xiin gi mooy différence bi. Mhm. mais amul différence ndax sikar la lépp sikar la rek. lépp ci yàlla la jóge ci la ci lay jëm jeex na. ngeen l'histoire des des xiin lan moo ko indi ci yéen euh, li ngeen di def. waaw mooy li ma la wax sànq pourtant wax naa la aussi commencement bi ne yàlla maam Sarafaal tax ñu bëgg xiin. mais est-ce que tey jii bu ngeen doon def zikar sans xiin. est-ce que man damay man damay sikkat saa xiin damay xiin. génn naa benn affaire fii si corona bi benn mélodie sax. waaw man damay man man man je suis pas kii mënuma du ma toog yem fenn kese déedéet. maanaam lii laa bëgg mooy sama mooy sama option moom laa visé kon ci lépp lépp rek dama koy dama koy jéem a waaye waaye est-ce que saa xiin yi yëf dina neex comme nu mu war waaw yow baal baal ba nga pare ma envoyé la yoo xam ne sans xiin la di nga xam ndax neex na wala neexul. lo loolu la ñuy wax madda wala wala leneen la. madda man dafa am brut boobooy brut. boobooy brut. waaw brut dafa am. waaw. brut dafa am ay xiin am. madda moo ciy ban. madda mooy tey comme nga taxaw yow kese sant gi dara du daw nga taxaw di di benn benn comme genre rajo. Mhm. loolu mooy Madaar. d' accord yow HLM boobu nga dëkk ñu gis ni tamit ñu bëri ñu ngi fay yeewoo ñu ngi ñu ngi ñu yëngu ci wàllum sikar léegi mm-hmm. diwaan boobu la moo fa instauré sikar. waaw fi ne Baye Fall daf fi xaw a yàgg. Baye Fall daf fi yàgg lool lool lool moo tax. Mm-hmm. waaw moo tax moom si si si jamonoy maam la jamonoy si naaw mm-hmm. moo tax moo tax moo tax xëy na ñuy tudd fekk fekk ko nekk ci. Mm-hmm. waaw Baay Faal bari yu bari fii mm-hmm. moo ko fa njëkk a woote kan ban ban ban ban uh, uh, figure moo ko fa njëkk a woote. moo fa njëkk a woote ah? lan. Uh, ak wàllum sikar. jabaru d' accord alors euh, amis auditeurs damay fàttali ni ñu ngi ci ligne bi ak Ahmed Ndiaye Sikar. moom euh, ci wàllu zikr yow euh, du ma ne idole mais euh, ci wàllum art bi ngeen nekk kan moo ci sa modèle kan nga ci gën a am estimam kan nga ci gën a fonk waaw man de wax dëgg neex yàlla ki tax ma gën a bëgg si kër lamp jàll lamp jàll bu géejawaay lamp jàll moom moo tax ma gën a bëgg si kër sama àdduna dama daan tax ba géejawaay dem di ko seeti waaw di ko seet fii di dem di si ay cànqam mu doon loo xam ne ma daf may neex daal dafa ma neexoon trop sax moom mm-hmm. daal moom la moom laa def idole man sama sama kii mm-hmm. xëy na certes bokkuñu si kat man moom laa def idole mm-hmm. waaw dëgg neex yàlla moom moom mooy moo may daanal si si kat mais lan lañ si karkat tamit dégg ma ni nee nañu sikkarkat yi tamit dañuy siisante lu bari ci événement eh, dañuy reyante kay. dañuy siisante. dañuy siisante kay waaye kay moom wax dëgg ndax yàlla dafa mel ni. affaire yi affaire yi ndeysaan bu mu demee woon bu njëkk. munoon naa ak léegi bu baax. Eh, lu tax lu waral loolu xëy na lu mu demee woon bu njëkk xam bu njëkk Baye Fall kenn faale wu doon Baye Fall Baye Fall na taxaw fii wax ba bëgg a dee nit ñi du la faale mais comme léegi nit ñi. ñu ngi bàyyi xel bu baax ci Baye Fall yëkkati seen i koppar ñenn ñi maa ngi jëkkalu dañuy da ngay da ngay am fant xam nga ñi ñun ñi fanaa la ci après loolu ngay bëgg a garder xëy na moo tax ngay ngay xëccoo ka reyante mm-hmm. waaw te jaru ko jaru ko ndax tey man man man benn problème laa am jamono ji mooy bu ma njëkk si kar mm-hmm. waaw moom fu ma dem si na dañ ma naan yaa mujjee si kar xawul waral loolu foo dem ci àdduna dañ la naan. yaa ngi mujjee sikar. lu tax. waaw xaw ma gaa gaa dañ ne damaa takk téere boo xam ne bu ma sikaree ñëpp ñibbi. ñëpp ñibbi. waaw nee na takk téere. ah. dangaa takk. dégg ma. ma ne da nga moo tax. non xaw ma dara man damaa xam ne barki Xaadim Rasul xaw ma dara. ma ne da farax moo tax. loolu xaw ma dara. xaw ma dara. d'accord yow léegi zikrullah bi ban yan ambition nga ci am ba fan incha allah nga ci bëgg yegg. man da fu ma si bëgg yegg wax dëgg ndax yàlla du ay du ay sax Sénégal ak fii fépp partout dans le monde. Mm-hmm. ak sëñ Tuba koo xam ne doomu aadama ñu fa rek ñu taxaw biral ko fa. Um, sant fa yàlla suñu borom subhanahu wa taala. mës nga cee tukki. mës naa cee génn bitim réew nag mais mës mës mës naa cee tukki fépp région yëpp dem naa ci. Mm-hmm. waaw région yëpp moom wax dëgg neex yàlla yëpp région yu Sénégal yëpp dem naa ci dem naa fépp région yu Sénégal yi kon mosuma see mosuma see jël avion dem ok mais mës nga quand même organiser de grands événements comme ça xale yi nga xam ne ñoo bëgg si ñëw yéeg ci podium bi woy wala non def naa loolu def naa loolu sama koñ def naa loolu feneen ak feneen def def naa loolu ci seet mhm. maa ngi doon waajal benn Sorano nii mais affaire bee ko yàq ah mhm. affaire bee ko yàq d'accord tey jii wàllum sikar ba tey d'après yow kan moo tax mu moderne euh, parce que bu njëkk ba comme ni ma la wax sànq ak léegi yow kan moo gën a moderne seen sikar tey ñun jaakaraa moo ñu ko defal. jaakaraa. waaw jaakaraa ndax boo xoolee tey jii Baye Fall fa mu nekkoon ak ci ko jaakaraa indi maaleykum salaam. Mm. indi indi indi indi civisme. indi si rythme si si si si Baye Fall. organiser uh-huh. lu bare bare loolu ñun ñun moom wax dëgg neex yàlla jaakara am kenn bu refaat ñooy suñu ñooy suñu référence. Uh-huh. d'accord fi mu ne ci liggéey bi euh, yaa ngi am looy waajal. waaw nii nii nii maa waajal benn affaire ni xam naa benn clip bu waaj a génn xam naa fii ak ay mercredi incha allah rabi. coronavirus. coronavirus laa ko tuddee. dangay wax rek. léegi yow lan nga ci wax est-ce que est nit ñi tam nekkul li ñu wax dëgg la nee nañu li ñuy sikar di ko woy corona bi ak di ko woy woyu neex moo tax ba tey feebar bi. <laughs> ba tey kiwul. waaw. waaw est-ce que du loolu tax boo bële bëggul def wax nga dëgg de way neex yi nga koy way. <laughs> yow j'espère que. <coughs> non man man man man dama ko saraxu man dama ko saraxu quoi ngir yàlla rek mu dem bañ. waaw loolu laa ko dama ko saraxu. d'accord à part ça yaa waajal beneen album wala. waaw maa ngi waajal beneen album maa waajal ay yeneen affaire maa ngi waajal événement maa ngi waajal festival salaam bi dañuy waroon dem ren mais mooy loolu affaire bee ko yàq. maanaam mi projet yi daal mi ngi suñu kanam bëgg nañ dem fépp fépp wax dëgg neex yàlla. Mhm. waaw ci lépp lu baax incha allah. Ahmed bëgg xam tamit euh, ba ba yëg ni sikkar nga ba affaire bi marqué la. man cant man cant man cant moom moo xasee ba tey micro moom damay man sama wàll boobu dama koy yëg ba des damay jooy jooy metti da jooy dëgganta. waaw maam Seydou Fall sikkar dafa neex. lu lay jooyloo yow. Ah, parce que zikrullah dafa neex ci xol lay jugee. zikrullah booy jugee ci xol ci xol rek lay dellu ba Sëriñ Tuubaa. li ciy neex nit ñi rek ba ñenn ñi di daanu di gaañ seen bopp ñenn nit ñi di jooy ba ba yëkkatee seen alal di la ko may. Mhm. waaw loolu loolu moo la ci neex yow mi koy way ndax balaa mi neex kenn yow lay njëkk a neex ba pare. dëggantaan. waaw bu neexee ci yow rek après ci lay neex. waaye Ahmed am na tam lu bari luñ jaaxal ci ci Baye Fall yi da ngay gis ñu bari ñu naan waaye man baay Fall laa du ma woor loolu ñoom fan lañ ko teg. ah ñun xam naa ci seen xam-xamu bopp rek lañ ko teg. ñun Baye Fall dañuy woor. Uh-huh. waaw woor moom moom Baye Fall da da da ko da daa war a woor ndax Seydou la maanaam bépp xeetu jàmm yàlla jàmm na ko. Uh-huh. kon du ñun ñun ñun ñun ñu war a référé wu si moom ba pare di ñàkk woor déedéet ndax daan woor bay woorloo xar yeeg liir yeeg ñëpp la daan woorloo kon kooku maanaam référence la si ñun. d'accord man du ma bàyyi faal bi naan duñu woor dañu war a woor dañu war a julli. Mhm. d'accord euh, alors euh, nee nañu tam Baye Fall yi ñoo fi dàq tox. Gànjaar euh, Gànjaar waaw. waaw waaw man de man Amine Ndiaye man tox ma naanu ma. waaw man mu tax yàmba naanuma sàngara bu may dem cant ñi may àndal ku xaw a tilim tilim takk nii xaw a tilim sa doomu topp man loolu laay dund. am na ci ñu bëri ñoo xamante ni ñeme nañ tilim lool. <laughs> mais man wax dëgg neex yàlla nag billaay wallaay taalaay xëy na. Ah? du dara de mais man loolu bëgguma ko. d'accord tey man bëgg naa tey kii ki may woo cant tey yére bi muy sol bu rafetee man ma daaxale ko man bu koy jantal mhm. ah man loolu mooy sama vision. tey jii ku la woowoon ci événement pour nga cantal ko sànq ñaa ngi wax waxu xaalis nee nga am na ñoo xamante ni dañ lay woo bon peut-être nga jox dara mais est-ce que yow sa wàllu bopp am nga cachet boo xamante ni moom ngay exiger waaw ah, nga tey jii yow maa ngi jégalu yow tey jii ba ma boo woowoon tey sa cant nga bun ko comme ni nga waxee nii ma doon sa soppe nga bëgg ma lool lool lool lool lool uh-huh. yaa may dégg bu baax waaw léegi nga ne ma cant léegi ma ne la nag may jox trois millions est ce que yor nga trois millions yooyu yoo ma jox. waaw xam nga ne ko waay. jeex na kon yow léegi damay xool yow fi sa doole toll rek ma ma ànd ceeg yow. waaw man noonu laay doxee. ne ko ne bu ma ñëwee si événement bi lii nga may jox. waaw ah, déggoo ma de man damay xool ku si nekk maanaam fi sa doole tolloog yow rek laay kiiweeg yow jaayef des fois di nga ma woo ne ma waa dama bëggoon nga cantal ma ma ne la ah, ku baax waaw yow kay waa léegi xool nu muy demee. nga ma léegi waxal ma ne la ah léegi man nag may jox paase bu ma ñëwee. Mm-hmm. après boo pare nga jox ma xéwalu daara bi rek amul solo. waaw mm-hmm. ah, ñenn ñi moom loolu laa lay dund ba dund ak ñoom mais ñi nga xam ne tey dañuy organiser sabar bu ñuy organiser sabar fay si deux cent mille. Mm-hmm. wala ñu organiser organiser woo benn Youssou Ndour wala Wally Seck ñu jox leen xaalis. man boo ma wooyee dama naan danga may fay ah. ah man loolu man noonu laay kiiyee daal. Ah, mais bien sûr parce que mooy sa gagne-pain. noonu la demee. dëggantaan. waaw ah, ci laa yor sama kër ci laay fay location ci laay jox samay doom ñu dund. am nga soxna am naa soxna am naa ay tuut jaajëf. <laughs> gën laa boole soxna si gën leen a boole. amiin amiin. waaye kontaanoon nañ torop dalal la suñu émission lan mooy dernier kàddu lan mooy kàddu gu mujj gi. mooy yow maa lay jaajëfal ba pare. man maa lay balaa dara balaa dara lay jaajëfal bu baax a baax a baax a baax di kontaan si émission bi. ndax taral naa la tamit xam nga. di bu wér rek. di jégaluwaat bu wér. am am mbégte lool ànd ak. mbégte lool. léegi nag di di di di ñëpp képp koo xam ne mi ngi déglu rajo bi rek ñu ngi lay remercier. ah di jégalu waat xamoon xam naa ne affaire yi waroon na gën a mën a neex nii. mais tamit incha allah incha ñu rëkk. incha allah waaw waaw <laughs> ah, loolu laa nam nag. yow loolu la def. loolu laa nam trop sax. war ceeb la ko def bi moo tënk lépp moo. moo tënk lépp moo tax ñuy def émission par téléphone sax parce que bon. on a le waaye incha allah du ñàkk des na tuuti borom bi wisi ndox mu sedd mu dem fa mu jóge ah parce que ñun sénégalais comme on dit ah confinement xamuñu toog euh, ñu tënk. Ah, benn de. xam nga mhm. ah, di leen wax nag ne jaajëfal naa leen bu baax a baax a baax kontaan naa lool lool lool si émission bi. Ah, di ñaanal ñëpp. képp képp koo xam ne tey corona bi laal la mën a sax képp koo xam ne corona bi laal na ndax ñëpp la laal. ñëpp la laal di ñaanal ñëpp rek. am na di leen wax ngeen muñ. man sa sant bi moo ma gën a neex Ndiaye Diatta. <laughs> Mbadu Mbadu Mbadu Gaynde Ndiaye nga. <laughs> waaw. <laughs> waaw ndeysaan ah loolu neex na. yoon incha allah. incha allah rabi incha rabi. c'était Rewmi People aw Mimi Seck donc système mi au bout du fil incha dem ba beneen samedi dalal beneen daan.